baabu li abuntu la fit taxaaliji ci saafarawu wa dikri buqaa ak tudd ay mocc wa téere ci ak gaaf wal nujoomi ak ay biddiw wal xisaay ak tàpp wal was mi ak ñaas wal kilaaji ak ay xaj wal rifqi ak ñëwante bil mamlooki ci ku ni moom nekk ni moom nag ab jaam nga ci gën a jàpp dégg waaye ak jur ba tey ci la ne bunt bi yooyu la fi lu ko wax wala ba sa ayit bil istiqaay ci mocc ñal xay ni ci bët wa xëyriha ak lu dul bët wa taxawudi ak léemu wa taxaaliji ak saafarawu wa shurbi dawaay ak naan saafara wal fasti ak gàjji wal kay yi ak luggu maanaam nee na mocc mënees na ko bu fekkee li ngay moccee baate alxuraan la wala baat la yu tey yoo xam ne xam nga la muy tekki rek baax na la aay rek mooy mocc ay baat yoo xam ne xamoo lu muy tekki ndax Maalik nee na mën naa am muy baati kéefar te yëgoo ko kon nee nañ bu fekkee baat yi ngay mocc moom seet na ne mocc nañ ko ba tàyyi mu am njëriñ waaye tax ñu xam la muy tekki dëgg-dëgg kon des koy sib ci wax yi ñenn ñi te doo ko sañ a mocce waaye am nañu ne bu fekkee ne xamuñu la muy tekki waaye gis nañ ne mocc nañ ko ba tàyyi loolu wér moom mënees na koo mocce lay araam mocc nag mooy ay baat yoo xam ne wóor nañ ne baati kéefar la nga xam ne ak bokkaale ak ku kéefar da caa nekk kooku moom ki suñ te wax baati mel noonu di ko mocce moom day araam su ko defee kon moo xam lori bët la ñu mocc wala leneen lu mën doon jaan ak jiitu yëpp rek mënees na koo mocc léemu itam yëpp mënees na ko saafara wu ni ki dem ci docteur mbaa wuti xobi garab yi mbaa mboolem xeet saafara yi nga xam mënees na ko mënees naa naan garab it noonu gàjj yi mooy dagg sëddu ji ngir génne dara ji yàqu ji gàjj yi yëpp mënees na ko kay yi bay ñu fi dee lugg nag jubluñ ci lugg bi nga xam ci wolof ndax bu doon loolu moom mocc ñooyam kay yi bay mooy lakk foofa ak sawara maanaam nag al kay yoon nii bàyyi ko ci kaw a ñaas na maanaam foofu ci góom bi wala fu demee ni góom di lakk ko ci sawar mu daal yooyu loolu di nga fajam loolu loo xam ne sañas na ko moom it wal xijaamatu nàmpatalu xasanatu aj rafet la nàmpatalu baax na naar yi moom daañu faral di def dañuy xotti yaram wi génn ci deret loolu am paj xeet pajum naar daal ñoo ko ëpp def fii ci suñu réew moom wal ko lu tus ngolu li tadaaw yi ngir saafaraw jaay suñ aji dagan la li rijaal ñeel góor ñi waaye xoo moom min zinati nisaa yi mi ngi bokk ci waajtaayu jigéen ñi tus ngolu moom nee na góor mën na ko ci kaw bu ko dee fajoo waaye mënu koo def ngir waaje ko maa ngir tartaarloo ko ndax loolu jigéen a koy tartaarloo te góor suñ te jekki-jekki di nur nuru jigéen nit nga xam ne jigéen suñ te jekki-jekki di nur nuru góor wala yu taala ji deful sa deful saafara woo bil xamri ci sàngara wala bi najaasa du caagénn ci sobe wala bi maa du caagénn dara loo xam ne fii nekk na ci moom maytatul medd wala bi cheyin du caagénn ci dara min maa ci loo xam ne xarama araamal na ko allahu yàlla subhaanahu sowal naa ko lépp loolu ci moom wa taalaate mu kawe dafa wax ne nag na nga seet baax li ngay fajoo li ngay fajoo day fekk mu lañu nekk lu araam sàngara mi mu wax wala sobe wala lu am medd yépp ci araam la bokk lu ne lu araam la dugalam na yooyu yëpp dara lu araam nag doo ko mën a fajoo léegi ba dee xayta sax nga xam ne sobe la léegi boo ko tuufoo wér ba boo ko defee ci sa góom wér it doo ko mën a def ci sa góom doo ko mën a tuufoo sàngara ni aay naan noonu la ñu aay diwoo ko mbaa yu demee noonu wala ba sa ayit bi iktiwa bi iktiwaayu ci lugg iktiwaa moo kayu bee ma wesoon ci gannaaw ñooyemoo mooy lakk foofa ak sawara ndax mu wér war ruqaa ak ay mocc bi kitaabillaahi ci téere bi yàlla bi loolu kalaami ak ci wax ak tay bi yu aji tey nee na alquran mënees na koo jàng di ca mocc yenn wax ni ki wax addis ba wax yi yoo xam ne nit ku baax a ko wax waaye daal max naa ma xam nañ ko moom wax leeralal naa ko léegi yëpp mënees na koo mocce wala ba si ayit bil ba bil mahajat yi ci ab téere toal la ko mbiréem def na ko takk wa fii haa te nekk na ci moom alquran alquran maanaam nee na takk lu ñëpp téere waaye lañ ci bind alquran la mbaa yenn wax yoo xam ne xam nañ lam doon su boobaa mënees na koo takk waaye dañ koy wutal sutura maanaam dañ koy bëgg di ko ëw mbaa nga ñaw ci morso bu set te tal xam ne daal léegi lu feeñ loolu moo tax ngeen ko dugaale ci wanam waaw bu fekkee ne nag léegi maanaam bu ëwoo ko defee ci dara la ko muur nag dañuy seet bu fekkee alxuraan la moom doo ko sañ ndax bala nga ko mën a takk moom day fekk mu am sotti soosu mooy loolu ko muur bu dee wax nag moom kon xëy na loola mën nga koo takk ci ëwoo ko defoo dara ci kaw wa isa waqa ndeem xewna al waba u mbas mbas mooy jëpp tawat bi dana faral di faat te it bu wàlle bi ardi xaw min ci suufis aw nit fala yaqdamu deful dikk alayhi ca moom wa man kaana ku nekkoon tam bi ci moom fala yaxruju du génn firaara ngir daw min ci moom al waba u mbas ak ab taamoon bi ñuy firee mbas ab taamoon tàbbara lay nekk ak ayin naan ñu wax ne ñoo bokk am ñu ne déedéet boobaaw moom mooy jëpp tawat joo xam ne day bari la rey tey wàlle taaxoon nag moom day mel ne day feeñ ci yaram bi yaram wi guux di def ay góom di toj ak yooyu xam ñu koy teqale ñu ci mën doon daal mbas lañ koy firee moom nag nee na bu xëyee ci béréb koo xam ne nekkoo foon bul ñëw koo xam ne yaa ngi foon bul génn waaw koo xam ne yaa ngi foon dañu dañ nga génn yóbbaale ko fu nga jëm koo xam dal la woon tam bul ñëw mu lay dal da ngay xel daal moo gën ko xam ku nekkutoo daal sib nañ mu ñëw koo xam ne yoroon ko itam duñ bëgg nga génn di ko yóbbaale wa qaala waxoon na ar rasul yonante bi alayhi yàlla na doon nekk ci moom asalaam mucc fi shu'bi ci mbirum gaaf ñu tudde gaaf ndax am na wala amut ne waxoon na ne in kaana dem am na fa fi fa fi maskani ko nekk na ci ab dëkkuwaay wal maraati aw jigéen wal faras aku fas dañu wax ne bu fekkee am na ci yett yi lay doon waaye ñoom dañoo wax ne dëkkuwaay boobu lay ak gaafam mooy ñam fa bokkal dëkk muy dëkk nooyu bañ a baax wala muy gaafam dëkkuwaay jigéen li gaafam mooy ñàkk am doom aw fas ñu ne ak gaafam mooy ñàkk na moo xare ci yoonu yàlla wa kaana nekkoon na yonante bi alayhi salaam yakrahu di sib sayi al asmaa yi aji ñaawi tur ya tur tur woo xam dafa ñaaw moom yonante bi da ko daa bañ loolu nee nañ dafa daan soppi sax lu mel ne xarabun bi firi xare wala xandalatu bi firi xettar wala murratun bi firi aji wex xam nga yooyu noonu tur yi naqari lañ xam ne yonante yonante yooyu tur moom bëggoon da ko daan soppi sax wa yuhibbu tamit sopp al fa la gaat nga ba al xasana nga aji rafet gaat nga gu rafet nag mooy nga dégg baat boo xam ne yelloo naag sa pajub aajo te du yaa tàmmoon ñu waxal la ko da ngaa génn rek tombee moom mel ne nga génn di wut rek dégg ko tudd baatu ah yow de sa aajo faju na yow de ñeenaa la waaw xam nga kon wala nga am lay daw loo xam ne daal moo la tax di daw bañ mu dal la ñu ne ah dégg tombee ko wax ne ah yow de mucc nga yow de ñeenaa la loolu noonu xam nga tombee naag la nga xam ne mooy sa mbir te du yaa ko sàkk woon léegi nag léegi nag bu fekkee yaa ko sàkku dañ koy aay ndax kon day mel ne kuy gisaanee ko yooyu bu fekkee loolu yaa ko sàkku xam ne léegi boo déggee baat sàngam daal boo dee tukki dem waaye boo ko boo déggee baat boobu mbaa boo déggee baat sàngam toog mbaa yu déggee noonu kooku moom dañ koy aaye peut être taw moom tam nga defe ko ci listixaar ñu ne af kaami la yooyu yëpp itam ta walay bant ak xeeti yëpp tàmmuñ ko waaye nga jékki jékki daal dégg la nga bëggoon a dégg mu tombeeg sa paju aajo te du yaa ko sàkku woon du yaa ko fexe woon daal loolu moom gaan nga rafet la sopp nañ ko moo tax sax mu wax fi naa wala yambaxi liman araada amran wa samiha ma yasuu an yarjaa bal yamdi li amrihi wa yaqul allahumma la yati bil xayri illa anta wala yadfahu charra illa anta fa innahu la yaduruhu shay nee na soo namee mbir dégg loo xam ne daal neexu la ndax daa mel ne naroon ne sa doom dina fayu bu ñu taxaw ñu ko na nga ne yàlla kat yow rek yaa mën a andi yow yow rek yaa mën a fekk lor te daal jàll ja dem ma nga doon dem waaye bu la loolu taxaw ñu ko bu ne rek naawuñu ko ndax xam naa ne loolu moom du sotti wal xaslu raxas li nga xëy ni ngeen yel bët bu dee wal xaslu nag muy cangaay waaye mën ngaa def kon xanaa wal xaslu raxas li nga xëy ni ngir ayu bët ay wax si la mooy bu raxasee alxaayinu aji aay ji bët wacc fafoo kanamam wa yodde ak yaari loxoom wa muy faq yi ak yaari tencoom wa rukkubati ak yaari bëti boomam wa atraafu rijlihi ak cati ñaari tànkam wa daaxiyata isaarihi ak biir tubéyam fii xadahin ci ndab summa yu sabbu topp def na ko sotti wala summa yu sabba topp def na ko sotti xalal maa ngi nii ci ka bët bu aay wa dal borom bët bu aay wi da koo tuddee fii ku añaan maanaam dañoo wax ne bët dafa am ay woo xam ne bu koo ko xoolee xoolub añaan loolu ji ci yàlla defoon mën naa dal kooki mu xool xool kañaan des na wax itam daaw ñu seen bët aay nga xam ne bu ñu xoolee rek loola daal di am sikk ni ñu ko jànge woon ci aljawhar an nafis nee nag am na ñu koy faje dañuy seet ka nga xam ne moom la bëtam aay dagam xool na kenn ba kooku musiba dal ko ñu koy wax ne ko yow mi xam ne yaa amee bët bu ay raxasal sa kanam ak muy sëlmal ak say loxo ba ci say jonjo ak say ak say tànk ba ci bëti wam yi waa muy cati tànk yi bëti wam yi raxas biir fa nga xam ne fa lay sol tubéy maanaam mel ne tooj yeeg biir fa nga xam ne fa lay sol tubéy su ko defee nag bu ko raxasee fekk lépp mu ngi koy tiimale ci ndab daal jël loolee nu sotti ko ka bët ba ay ba daloon daal jël loolee sotti waaye nee na bu dee ci islam moom bi bi ji daal la nga ci sañ a seet yett la benn mooy gindikoo ndax suñu borom nee na wa bin najmi hum yahtadoona kon mën nga cee gindikoo xam ne ci fooy jëm moo xam ne dox ci bud ni kii booy dox ci buddi gi xam fooy jëm bokk na ci itam man cee teg fa loo xibla waaw fekk am na mandarga yu la woon fii kaaba gi féete ndax bu duggee gi xam fu ngay jëm loolu baax na ak itam nga mën cee xàmmee buddi yi la ca jàll ak la ca des ndax boo duggee woor xam waxtu way yéene waxtu way dog waxtu way bàyyi lekk waxtu way naan yi deme noonu yooyu yëpp moom taamu nañ ko ci te mën nañ ko cee xàmmee waaye lu loolu rek nañ ko ci moytu wala yu tax su dee sa jàpp kala bun ab xaj fi dóori ci kër ya fil xadari ca taax ya wala fi dóori baaliyeeti du jaay génn ci këru àll ya illaa li sarhin dara ngir mbay aw maasiyit ni wala ndoxteef muy ak jur yasxabuha xam ne xaj bi day ànd ak ñoom fi saxaraay ci àll ba su ma yaroo mu topp dana jof si maaxa ànd ak ñoom muy gont si ànd ak ñoom aw li say di wala ñeel am rabbu yastaabu moom dina ko rabbu li xëy si ngir ab dundam laali lax yu du ngir po nee na xaj moom day day day dañuy aaye ku jékki-jékki wut ko nga xam ne xaj rek moo la neex kooku moom bu fekkee ne xaj bi du matt def dara def loolu lu si bu fekkee xaj bi day matt mbaa muy sonle nag moom mu araam te yoon dana ñëw rey ko ak la dëgg nga rey ko boo ko réew réew yoon rey ko mu des nag nga wut ko ngir faje ko soxla maanaam ngi mel ne ngaa bëgg mu sàmmal la sab tool wala ab bur wala sa bitik mbaa sa kër yu mel noonu kooku moom sañes na ko wut ngir loolu ndax dara nekku ca boo yore mujj sax mën koo wut rëbboo ji ko waaye fekk na rëbb ma rek nekk rëbb mu am njariñ mooy benn la ngay rëbb moom ngay bënde mbaa yàpp yomb la ci waaxu jënd ko li ngay rëbb ci ngay amee yàpp yomb mbaa daal yi dem noonu waaye rek ba mu nekk rëbbum po ni kii boo ne rëbb rëbb ma rey rek bàyyi moom day araam rey rek bàyyi nga xam julloo ko ren lekk kooku moom yàq la day araam bu fekkee ne itam rëbb moo la neex ndax jamono nawet ñëw na dem ci àll bi rëbb ni nga ko lekk sax waaye rek moom po rek nga ko def ba te loolu te kon des na ko sib wala bi as ayit bi xisaay la xanam mi ci tàpp gàtt ya li maa ngir li nga xam ne fii nekk na ci tàpp ga min salaahi loxoo mi haa ci yóog seen yàpp nee na tàpp nii ak jur mooy dindi ngóora ga waaw mënees na koo def gàtt mu ne xarak bay ndax loolu dina tax mu duuf loolu dina tax yàpp bu baax loolu moo tax sañees na ko wala yetta def na xan xisaayin xëy la walis tàpp fas yi fas na moom dañu jàpp ne moom deesu ko lekk da ngeen deesu ko lekk nag kon deesu ko tàpp ngir bëgg yàpp bu baax kon fas moom dañuy aaye ko tàpp wala kuréel def na sib alwas bu ñaas fi wacc ci kanam wala bas ayut na bii ci ñaas ba fi xëy bi faale ko ci lu dul loolu nee na sa jur mën nga koo ñaas def ci màndarga moo xam ci ngay xàmmee sa jur loolu sax daa mel faral la ci nay borom borom borom borom jigéen moom ñeen nekk am nañ seen màndarga moo xam noonu la ñuy ñaase te la mënu caa ñàkk bu wenn xasee def màndarga mi itam kenn du ko sañu defaat ndax loolu day jaxasee jur gi dañuy aaye nag mooy ñaas ci kanam kanam moom na ko moytu lu yàgg yàgg na ma na ñaas ci wet gi waaye kanam moom na ko moytu buñ ci ñaas wayu tara faqu def na ñëwante bil man loo ci ku ñu moom wala yu kallaf te defu ko togg minal xamali ci jëf maa loo xam ne laa yottiku du ko attan dafa wax ne nag jamono yi jaam amee jaam boo ko amee da nga ko war a yërëm ñëwante ko da nga ko liggéeyloo waaye da nga koy teg rek lu mën bul ko teg lu mënut te it na nga ko sàmm ci wàllu lekk ak naan ak tëdd waaye loolu yemul ci jaam bu fekkee dangaa yore jur mel ne xarak beeg yëpp da nga ko war a sàmm toppatoo ko di ko jox lekk di ko jox naan waaye moom doo ko sañ a sàggane doo ko sàgg kon lim ma ji wax mooy wala yukallafu def ko togg minal amali ci jëf maa loo xam ne laa yortuuxu di ko attan maanaam daal kooku nga xam ne yàlla la ko dénk muy ab jaam da nga ko war a yërëm doo ko teg dara lu diis loo xam ne mënu ko te it nga di ko jox lekk naana ko col rafetal sa digganteeg moom ba tey bu dee jurut noonu la ak jur bu fekkee ne amut fu ñu ko mën a sàmmee faaw nga war koo xont bu fekkee ne laa amul jur te ayu fi xarit na ko xon te ta yoon forcé la jaay ko jaam pour nan la jaam la ci gannaaw ni boo ko tegee loo ko war a teg ni ki médital ko yoon nangu ko jaay ko ci forcé su ko defee nag bu doon leneen la mel ni tool baa yooyu nag nga am ko noppi sàggane ko mel ni ay ta ay garab yi meñ nga sàggane ko kooku def nga lu araam ndax yàq nga yàq alal ji waaye du tax nag kenn forcé la jaay ko loolu te du amatoo